Oustaz Iran euh, tamxarit ku ne xam na ni ci fan yu néew ñu célébrer ko diggante tamxarit ak l'islam ak ni ñu koy feetee fii Sénégal. waaw Sénégal ni ñu koy feetee euh, baaxul baaxul xam nga lu tax baaxul euh, booy jeexal at booy jeexal at danga war a inventaire ni commerçant bii def seet li nga dund yëpp.

nga xam lépp nga sukk ci kanam yàlla jéggalu ko seet li nga def ci lu baax yépp nga gërëm sunu borom at mii ngay dugg nag nga fas yéene say baax yokk say bon wàññeeku loolu lañ ko war a fet waaye di tëgg di fecc góor ñi yor si yére jigéen jigéen ñu yor yére góor ay périg est-ce que xam nga taajaboon sëtu yeneen bi muy Xuseyni ñu ngi ko reyee Karbala Karbala lu muy firi njàqare ak musiba lay firi karbun wa balaa on mooy njàqare ak musiba moom la place bi firi Karbala arab la li muy firi ci olof mooy njàqare ak musiba dañoo dagg bopp Xuseyna dagg tépp surtout yonent bi Fatimatu bintu Rasul ku ñuy wax amru amru nu si juus yenent bi moo ko waxoon ne ko kalay rey fii day sëq lépp ak karaw comme karawu fas moo tax bi mu tëddee mu dëgg ci kaw Ousseynou Ousseynou añ tuboy gis karaw gi ni ko sama maam waxoon na ma ne yaa may rey xaaxtandi ko tufli ko amrum na si joos rey ko dagg bopp jël xeej jam ko ci bopp bi yëkkati ko ne taajabu lillahi yéemu leen ci yàlla ci ni ma reyee kii gaa yi naan taaja boon wóol lii ko teg. kon bésub bésub la waroon a. Eh, bu métti warut doon bésub ñaawalaat ndax leen ñaawalaat. ak fecc ay tëgg ay caaxaan mais bés bi laajul loolu bopp sëtu rasulillah ñu ne ko tipp dagg roof ca xeej naan taajabu yéemu leen li laay ci sunu borom ñun yàq ko ne taaja boon wóol lii Yasiid ibnu Muawiya moo ko sant. parce que li tax euh, histoire mag baaxul yow seen kër bu ngeen amee histoire day répercuté wu ci xale yi parce que Ali ak Muawiya dañu am problème moo tax ñoom ñaar bi ñu dee Yésid toog ci palaasu baayam lim njëkk a def mooy reylu Xasan Xasan la njëkk a reylu jabaram la oo jox ko ne ko tooke ko boo paree ma takk la jox la ay million nga nekk jabaru buur mu posone Hassan quarante jours la sukkuraat poson bi di dagg mbàq gi tab tab buuti di mu woo Ousseynou mu ñëw mu ko damay dee ñaanal ma Aïcha bu nangoo ñu suul ma ci sama wetu maam gis nga gis nga gi te bu ko neexoon forcer ko ne ko na xamna li maray rey o seenu ne ko dang mako wax mu ne ko duma lako wax yalla ng may xaar ma ki mako def ñu wara dajje ak yalla <coughs> garaawul bi mu faato mom hasan kiko kiko posone jaadatu la tuddu jaadatu Hassan fase na quatre-vingt-dix-neuf femmes quatre-vingt-dix-neuf femmes la fase cinquième bee ko rey parce que dafa tàngoon bañ tuddee ko mit laax fase kët bi jaadatoo ko rey jaadatu nag bi mu ko reyee dafa mujj yónnee ci yési du Muawiya pour mu takk ko mu ne ko damay bañ ko la yebal nga rey ma li nga def sa jëkkër kon noonu nga may def ñu des nag pour war a suul Xasan ci wetu maamam yoon ni Marwaan ne ko bu ko fa kenn suul nañ ko suuli ca àll ba sa raw du maam jur sa baay nit di audacier ab jàmbur ba xañ la sa maam adduna lu ne xew na fi jant tiimul gan